bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi anzala alkitaba fi leylati alqadr ala sayidina muhammad nuuri abdillah yacsuubi alarwaax miskaati alquluub allazi addabahu rabbuhu fa ahsana ta'dibahu salawaatullahi taala wa salaamu alayhi wa ala kulli aalihi wa sahbihi wa xulafaayi wa ridallahi alxaalid an jamii almuminin wa ridallahi alxaalid عن شيخنا ومربينا ومرشدنا وأستاذنا الشيخ محمد المصطفى سي أحمد المكتوم حفظه الله تعالى وأيده ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi jëfal suñu président séance bi ndax dimbali na ma la ma doon bëgg wax waxal na ma ko di jaajëfal oustaz Hadji Ndiasse di bëgg lool ci jotaayam bi di beral nuyoo bu sell boroom daara ji moom mi ne woon balaa ngaa mën a jàngale dangay jëkk a man créer environnement culturel sëriñ bi boo ko nuyoo nuyu nga ku mu am ku jege ak ku sori ah, lecture du Coran Lecture du Saint-Coran. Règle et bienfait. baatu alxuraan bi ñoom teggil lañ ma ko liñ ci wax doy na sëkk mais baatu xiraa itam comme nee na aaya ji jëkk wàcc ci lay wax xiraa moom jërëjëf qiraa alqiraatu amaliyatu tafkiki alxuruf amaliyatu tafkiki alxuruf li takwini maanan wa fahmi nas wa tafaulin bayn alkaatibi walxaari imma bi sawtin aw bi sumt qiraa mooy nu ñu mën a sax ba décoder lettres yi décodage boobu ki jàng ci lay tàmbalee moo koy may mu mën a ràññee baat yi mën a xàmme itam maanaa yi ndax léegi baat bu mu gis mën koo xam waxiya طريق للفهم والتواصل بين الناس xiraana bari njëriñ lool ndax diggante xiraa ak tilaawa ak tartiil ñoom ñépp ay synonyme lañu waaye tolluwuñu martaba nag القراءة قد تكون لكلمة واحدة أو لحرف أما التلاوة فلا تتم إلا لكلمتين فصاعدا الترتيل هو الترسل والتدقيق في النطق ورتل القرآن ترتيلا وهي alxuraan mi ñu doon wax diggante nuzul ak tanazul léegi nag téere bi aksi na di téere boo xam ni yàlla suñ boroom moom mi xam te man te sañ moo ko yéene ay jaamam moo xam nit moo xam jinne muy këns boo xam ni trésor la dafa cee doxañ lépp waaye nag pour nit mën koo jariñoo nag dafa am ay teggin yu bari yu mu laaj xam nga xiraa mooy lecture rek ndeysaan doon naa dégg ci ku tedd ki yàgg na Cheikh Mouhamadul Moustapha 1989 nu ñëw toog moom ci ñëw mu ni bu yàgg ba léegi sama waqaf ci écran laa koy def écran man xaw ma man xaw ma boobu lu écran mu ne bu yàgg ba léegi sama waqaf ci ecran laa koy def ci laa koy defee ñu teg ci ay jamono yàlla may ñu toogaat ak moom mën ne ah léegi day mënatumaa àggal sama waqaf su may jàng sama waqaf moom Serigne Moustapha damay agsi ci benn passage rek biirtoo mën a dem booba mu ngi jóge ci kitaab bi dem ci geneen wàll gi waaw ndax ñi nga xam ni bu ñu tiimee alxuraan di ko jàng muy clignoté arafi du lux ñuy jaar fu leen neex di ci génne lu leen soob ñooña ñoo jara roy ci jàng alxuraan yi nag buñ ne alquran rawdatun ganna shaamilun bi anwaarihi aalamiyun bi afkaarihi yatatawar ma alxalq zamanan wa makanan wa huwa alkitaabu almuajiz almunazal ala sayidina muhammad بالتواتر بالتواتر téere boobu dafay màgg ànd ak jamono di màgg ànd ak le temps jamono bu ne am ñu ko mën a jariñoo jariñ ci ñeneen ñooña ñoo jara déglu ñu dimbali ñu moo laaj nag ay teggiin polites minimale bokk bu la mën a may yow jaam bi nga mën a jariñoo alxuraan ndax tudd nañ ne ay dimension yu bari la waaye dafa sell te it maxuutun bi xifsillaahi nuurun ahaata bihi anwaaru pour nga mën koo jege selon noo selle rek noonu ngay percer selte googu nag wax ñaari baat rek ak ñett bu ñaa al aadaab naani bil aadaabi asulukiyaat alxamida allati tasmaxu lil insaan xusna tafaaculi ma alquran xam nga interaction bi war a am diggante jaam bi ak alxuraan te sëriñ bi jàngale ko alxuraan boo ko tiimee nii téye ko dafa am télépathie natt ba xam yow yaay kan ak loo indaale yéene ji nga indaale ak sellte gi lay jëflante yow moo tax am na ñoo xam ne dañuy préféré dugg ci ruq jàng alxuraan kenn du ko kenn du fa ne boo ko defee du ñàkk loo yëg yow lay waxal mu ne nag euh, aadaab yooyu bari na waaye bokk na ci ixlaasu niyati lillaahi taala bala ngaa jàng alxuraan rek na nga beesalaat sa yéene xam yaa ngi koy jàng te yàlla tax ndeysaan eh, ndax innamal amalu bi niyaati yaqulu ibnu ataillah nee na al amaalu suwarun qaaima wa ruuxuha al ixlaas bari na jëf joo xam nit koy jëf forme rek la fekk sellal ñëwul rek mu ngi mel na jëmm ju amul ruux kon nag bala noo jàng alxuraan nu beesal suñu yéene loolu lu am solo la ndax baatu ixlaas am na fu Seyduna Muhammad di jàngale ni jëf la joo xam ni diggante jaam beeg yàlla rek la malaaka yi sax mun ñu koo gis ba di ko bind seytaane mun koo gis ba di ko yàq moom ixlaas jàppal ni kon nit bala moo jàng alxuraan na beesal yéeneem deuxième bi mooy nag tahaaratun baatiniya wa zaahiriya ndax nag laa yamassuhu illa al mutahharun bala nga ko jàng nanga fexe ba laabal sa xol laabal sa yaram xam na mooy baatu pureté bi sëñ bi doon jàngale am na pureté boo xam ne ndox du ko raxas ci xol la nekk ndox li muy raxas mooy joxe tahaaratul xadas ak tahaaratul xabas boobu moo feeñ waaye bi ci biir nag kooku ndox du ko raxas génne ci sa xol kañaan génne ci mbañeel génne ci xatal génne ci coxor doona jëriñoo jëriñoo téere bi léegi loolu daa bokk ci teggin yi waaye day na boole ci eh, ñetteel bi lu am solo la ñetteel bi mooy al istiaadatu min asheytaani rajim bala ngaa jàng alxuraan rek na nga jëkk a muslu seytaane yàlla noonu yàlla musal ci moom ndax li man bari na almaktuum googu mag nee na maa sunu maam si amatien si almaktuum fii la ko wax ci Tiwaawan ne na compteuru xol fa mu nekk yàlla xamal na ko iblis dajj na ko alxuraan dafa ne seytaane seen noon la kon nag fa tax soo wax duwan waaw bari na kuy jàng alxuraan te si am dara ndax fekk na moom mu yàqal la lu bare bari kon alxuraan dafa ni fa ida xarata alquran fastaid billah boo nemmee jàng alxuraan rek da nga jëkk a musul te mooy nga jël yàlla doxale ko sa digg ak seytaane waaw inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan dégg nga eh. lu mu yàq bari na ñu ne nag boo ko dee jàng nanga fexe ba am xushuu xushuul xalb mooy nga série série ak sa bopp nga série ak sa bopp leneen nga fekkee fu ñuy wàccee kaamil da ngay rus toog naa ci jotaay nit ñëw ànd ak waa daaraam di wàccee kaamil bi sama kanam di ko def defin woo xam ni pare ni ma dama bëgg nga jàng xat mi ma ne ko ah jëg jëgal leen ma nga jàngale ko seen bopp rek man loolu may rubba xaari i quraanin wal quraanu yalanuhu danaa ci ñëw moo tax xushuuxul xal bi mooy xol boo xam ni day toroxlul yàlla xam ni yàlla moo yelloo lii yàlla mi la baaxe bind la boole ci njaboot Seydina Muhammad may la am xel ba ngay jàng alxuraan waaye bàyyi ko xel nag jàmm ko ci moom rekk bëgg nañ ci ram sukuunul jawaareex kiy jàng alxuraan na ay cëram na dal ndax ni mu neexee moom alxuraan ku koy jàng war nga am leen looy sentir mas na maa dégg ci ku tedd ki Serigne Moustapha mu ne su ma amee problème waaw xam naa day jàngale waaw wala ma am stress nee na ñaar moo gën a gaaw te dindi ko benn bi ma déglu musique wala ma def lecture mu ne waaye nag lecture lecture li muy dindee sama problème moo gën a gaaw foofu ci musique kon jàng alxuraan day dindi stress day dindi njaqare delloo la ci sa boroom boo koy jàng itam sopp nañu nga yëg màggaayu boroom bi istishaar azamatillaahi waaw te mooy ngay sentir grandeur boroom bi ah mooy àddu di waaye jàng alxuraan mel na ko jàng journal yëgoo dara jàngaguloo ko ah boo koy jàng nag dafa am yoon dafa am ay stop ñu mel na ngay conduire oto rek booy conduire oto du fa la neex taxaw am na ay tableau de signalisation am na stationnement interdit am na yeneen alxuraan boo koy jàng du fa neex taxaw déedéet ñeenti yëf la te mu ngi ci kaamil bi ñu bind ko ci am na miim waaw ba ca jiim diggante bi boo xoolee sa kaamil ñu la fii sang ngi fee taxaw taxaw moo gën bu dee miim fii moom ñu def sili sañ ngaa taxaw mais sañ ngaa continuer continuer gën nag kon boo continuer moo gën ainsi de suite maanaam boo koy jàng bul gaawantu wa rattilil quraana tartiila ndax inna sanulqi alayka qawlan saqila am ay béréb yoo xam ne boo fa àggee da ngay sujjóot da ngaa war a sujjóot delloo lépp ci yàlla was judd waqtarib nee ñu mat na quinze ñu ne waaye dix yi moom ñépp ci d'accord imam Malik moo def ko onze mi ngi seen téere yépp mi seen risaal benn boo ci àgg rek nga këpp sa ci suuf jàng dara bu la neexee nga ne sajada wacc yi lilladi xalaqahu wa sawarahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu wax dal di siggiwaat wala yeneen ñaan yi ñu ngi fi allahumma uktub li biha indaka ajra wada anni biha wizra ah waj'alha li indaka duxra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daawud alayhi salaam benn wala boo nga ne subhun qudusun rabbul malaayikati wa ruux set yaa ngi sujjóot même bu la fekkoon ci julli moo xam naafila moo xam julli farata danga war a sujjóot do agale si julli ndax jox alxuraan teggi ni loolu lépp war nañ ko war nañ ko nafar ah, sopp nañu tam kuy jàng alxuraan nga jublu penku bu fekkee amoon ngànt jublu penku ndax penku nag yàlla ko tànn te Seydina Mohamed jàngale na ko nee na penku mooy sangu jotaay yi kon nag bu jublee penku lii gën a am solo mu soppitam euh, buy jàng alxuraan ndeysaan <laughs> moo def tadabbur ak tafakkur maanaam bu jàng rek dem na ngay jéem di xam dina too xam kii lan lay wax yow ndax leetar bi ñun lañ ko adressé nu war a xam contenu bi war ko mën a exploité war ko mën a delloo delloo suñu borom kon nag nee na na nga def tadabbur afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha lu tax ñuy jàng alquran te duñ ko xalaat jéem a am tuuti notion yonente bi alayhi salaam ne laa xayra في عبادة لا فقه فيها fi qiraatin la tadabbura yàlla goo xam ne da ngay da ngay làmbatoo rek da ngay tatone ne benn qabla an taabudooni dégg nga ñu ne itam dañoo bëgg booy jàng alxuraan boo ko mënee nga teg sa baaraam ci kaw mbind bi yàlla yàlla day fay làmmiñ bi fay bët bi fay baaraam bi dégg naa ci Serigne Amad Diop Saalix mu ne maa ngi ànd si Mounirou Sarr ci tournée ñu dem Gosaas fekk sunu maam Alhaji Rawaan Ngom ci jàkk ja radiyallahu taala anhum maam rawaan dëkk bu mës a dem ci jàkka ja lay dal ne nu ñooy def suñu ñaari rakka ba pare di ko seetu rek muy muy jàng muy jàng wax fam ba àggal te ci baaraam bi bi mu geesoo gis mu si mu niiru mu téye loo xam dafa jooy ba xolum sedd mu ko ah, saar mosumaa gis ku mel ne sa maam si daaji Malik door indi nag nettali ya ndeysaan ba ca ba ca njëkk mooy mas naa ko laaj ni ko man de damaa jaaxle damaa xamul ngor ak diine ban moo la gën a sonal ne keroog su ma rusul woon dana ma dóor mu ma man Maodo ngor di ma bëgg a rey ngor di ma bëgg a rey nga di ma tëkkalee ngor ak diine kon yooyu mooy diine mënut a dox te ngor amul ah booy jàng nag ah foo àgg te muy ñaan te muy wax aw aw yiw ñaanal yiw yi bu dee musiba la moom muy wax muslul ci tënk bu ñee wax jàng alxuraan njëriñ li ci nekk keroog boobu ci jotaayu maam rawaan ak ñoom mu ni leen dama doon firi alxuraan man rawaan di wax bokk yi nag njariñ alxuraan ni mu toll ndeke Cheikh Sidi Hadji ngi taxaw sama gannaaw di ma dégg ne ma nag njariñ alxuraan nangam la nangam la ba mu ba mënatu ko muñ mu ne ma rawaan mu ne bërit rawaan yaa ngot yaa ngot xam nga ngot xanaa lii nga wax mooy ki koy jàng di ko foye waaye kii jàng alxuraan te yàlla tax xaraf bu nekk këhu xaraf bu nekk xaraf bi alif xaraf laam xaraf miim xaraf mais booy jàng yàlla te yàlla tax xaraf ba ne day toon la yàlla këhu moo la xam ne ñoom ah jàng alxuraan di ci njëriñ du jeex nee na boo jàngi benn araf ci téere yàlla bi mu nekk aw yiw waaye yiw bi dañ koy ful mu nekk dix mbaa soixante-dix mba cent mbaa soixante-dix mille mbaa macha allah moo tax neexut a takk de ñiy jàng alxuraan ñu tëlluwul moo tax kii moom bu ko am fukki yool yool mooy crédit crédit ñu def ko sa compte kon eh, dama bëgg gàttal fii rek ndax ay ishaaraat rek la ah muy téere boo xam ni yow ma xam day ramm day ramm ku ci xam benn baat moroom la ku ci xam benn saar moroom la waaye lii am léegi moo jaaduwul te mooy toog rek yooyu sa portable rek waaye sàggane alxuraan lool waaw ndeysaan ndax nee na buñ nee am na kuy jàng alxuraan te alxuraan mi ngi koy móolu ñu ngi koy porter plainte mooy ñi nga xam ne ñu ngi jàng ñuy dégg rek boo nee ala laanatullahi ala zalimin teew boo xëyee tooñ bëggoontee tooñ ah waaw waaye boobu nga jàng jeneen aaya su ma nabtahil fa naj'al la'nata llaahi ala kaadibiin te bis boo xëyee fen ñaari fen mbaa ñett kon yaa ngi foyee alxuraan moom mi ngi lay rëbbu ndax li nga jàng sa lamiñ say cër jëfewu ko te loolu nax sa bopp weesu ko nag ah bu ñu doon wax ku mel ne Cheikh Seydi Hadji Malick ni mu fonkee alxuraan ba ne inna alxuraan huwa almizaanu huwa minhu maa hawayta min al wa sadami ku nu sopp naa yonent bi rek kaay ñu testé la ci alxuraan ba am ci alxuraan kon nag bu nekk kaana xulqul quran day fekk muy koo xam ni buy def muamala buy jëflanteeg nit ñi du ca fen du ca wor du ca def leneen kooku de alxuraan alxuraan jëriñ na ko fi may jeexale mooy kon ñu ngi soññaat ñépp ñu gën a yittiwoo alxuraan masidun min al ihtimam bil quran al karim xiraatan wa tatbiqan ah ak taamiqul bahs والتفهم بالقرآن ak kasratu tilaawa xubban wa taabudan bil quraan al karim xawfan min hijraanihi waaw ittaxasu haadal quraan mahjuuran loolu dara jarul waaw te ki waroon wax yonent la waaw wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxasu haadal quraan mahjuuran kër gu néeg boo dem am na kaamil nekk décor rek décor boo xam ni boo jëlee ñu tey cinquante mille fi ba déwén da nga koo fekkaat loolu nag mooy atamatul kubra bismillah waaw baarakallah ah, yaakaar naa jëlaat nañu bind